procureur taxaw na taxawaay boo xamante ne c'était comme si que sax moom dafa bëgg commission ñu samp ko ndax tey euh, mën nañu wax ne procureur plainte boobu da daal di bloqué sax ba commission ad bi ñu euh, koy sax euh, waa assemblée tey mën a def seen vote ngir mën a taxal commission bi te xam nañ ne enquête parlementaire soo dee am plainte su amee ci yëf yi rek day daal di bloqué loolu effectivement loolu la yoon santaane commission d'enquête parlementaire boo ko tëralee su amee ouverture bu amee poursuite. judiciaire judiciaire bu amee l'ouverture d'une information judiciaire. commission d'enquête bi day normelu loolu am objet bu commencé liggéey itam te après pour les mêmes faits mu am une euh, information judiciaire dafay arrêter ses travaux loolu la yoon santaane ki nga xam ne moom jàpp na ne dañ koo tuumaal dañ koo tooñ porte na plainte contre X mais plainte bi ma lire ñi mu ciblé aussi leer na mais mu dem ci procureur procureur mooy c'est le maître pour poursuites procureur moo am opportunité poursuivre ou pas poursuivre loolu tam yoon moo ko may loolu procureur moom la yoon may pour poursuivre wala ne pas pour bu ko neexee topp bu ko neexee du ki nga xam ne mooy euh, juge bi man gëwuma ne da ko def pour bloquer commission d'enquête parlementaire gëwuma ko quoi sinon am na beneen yoon bu gën a gaaw de dóor citation directe leen di dur xam nga bu la dóoru bu ko dóoree citation directe le juge d'instruction est obligé de poursuivre mais fii l'opportunité des poursuites procureur moo ko am ça dépend lu ñu teg ci loxoom gis naa plainte bi moom mooy apprécier mhm. mais de toutes les façons nañ nit ñuy bàyyi xel ne ci biir magistrature bi fi ñuy toll dossier ba fa la ne mooy entre conseil constitutionnel procureur ci affaire plainte boobu. bàyyil xel ne organisme bi nga xam ne mooy seen syndicat entre guillemets. UMS UMS jël nañ position par rapport à ce dossier gis naa sax ñu jàppee ko ne ay dañ leen di menacer yooyu. ñàkkul aussi dañuy rappeler rek man communiqué bi ma gis prérogative yi leen yoon may ensuite le fait que organe constitutionnel assemblée nationale. amul sañ-sañu xool liggéeyu organe constitutionnel conseil constitutionnel mbir moom aussi euh, buñ ko buñ ko d'accordul euh, du ñu d'accord duñu duñu duñu duñu du ñu avancé gis naa ñu naan comme matière la toute personne loi bi xam nga lu mu wax loi bi daf ne la la la commission d'enquête parlementaire peut entendre toute personne xam nga loolu la wax mais daf ko bind ci suuf qu'il souhaite consulter. Consultation. Peut entendre toute personne qu'elle souhaite consulter. Qu'est-ce que ça veut dire ñu ko bind bi ñu koy bind xam nga lu tax ñu bind ko. Hmm. dañu waxoon ne bu fekkee ne dañoo bëgg def audition audition bokkul ak mener une enquête sur une personne incriminée audition mooy euh, commission bi ndox mi day dafa salte Ndakaaru ndox mi. dafa ndox mi baaxul am nay jamono am na commission d'enquête parlementaire bu meloon noonu ñu ne SONES ndox mi muy jox nit ñi baaxul mais yow bu fekkee ne yow député nga commission d'enquête parlementaire xamoo dara ci affaire ndox man damay dem wooy un hydraulicien wooy ko xam day liggéey ci ay microbe yu mel noonu ne ko yow de dama loon na entendre ci ndox lan mooy qualité ndox nu muy mel. pour gindeeku. pour gindeeku consultation la loolu laaj xam la. loolu moo nekk ci loi bi ay experts dañ leen di soxla ñun bi ñu def commission d' enquête parlementaire sur l' avion ak sur euh, la indemnisation de la famille Me Babacar Sèye am na ñoo xam ne on les a auditionnés parce que c' est des experts en avionique maanaam affaire avion pour ñu gën a leeral député yi avion mooy lan ak avion nu ñu koy réparer avion nangam nangam. ak ñaata la war a jar. Euh, oui yëpp ci la woon. Mm-hmm. loolu loolu la commission bi def c' est pas en terme de quand on c'est pour que assemblée nationale autoriser commission bi ne ko mën nga koo def waaye ça ne veut pas dire que sañ-sañ la bu bu bu autori bu bu bu commission bi arrogé wu. pour mën a def lu mel noonu et même bu koy def qu'il qu'elle souhaite consulter la ñu wax waxuñ tout personne qu'elle souhaite entendre dans le cadre d'une procédure. donc euh, buñ dellusee ci yoon lu mu santaane rek doxal li yoon santaane mën nañ bañ a am problème entre sunu biir te man foofu lay defee appel. bu jëm ci autorités yi rawatina le président la république c'est le garant des institutions. la maanaam moo yilif ñëpp kilifa nag du tax dañ la ko jox nga am sañ-sañ yëpp ndax am na moom lu mënul ci conseil constitutionnel am na lu mënul ci assemblée nationale. mais quoi qu'on lekk l'équilibre des institutions mooy cëram te tey ñu ngi sentir ne am na ci ñaari organe constitutionnel yoo xam ne dañu entrer en conflit. te moom moo ngi doog di seetaan. mais est euh, set na ci sax est-ce que set na ci. loolu moom moo ci mën a déterminer wu man dama koy interpeller en tant que président la république. mu xam ne euh, Sénégal fi mu toll moom mi nga xam ne moo seet réew mi ba xam réew mi fi mu toll mu xool boppam natt boppam mu ne man de yan mayoon na ma ma nekk candidat te man gëm naa ne yoon mayoon na ko ma nekk candidat je le dis en toute mu ne du ma nekk kandidaa parce que joxe naa sama kàddu li ci jiitu pour man au-delà du respect de sa parole ñàkkul jàppoon na ne mu nekk candidat muy gën a nekk tolof tolof ci Sénégal que mu bañ ko euh, que mu bañ ko nekk ndax gis nañ aussi Sénégal yëpp bi président Macky Sall ne nekkatuma candidat lu mu jur ci apaisement déggatoo presque coow ay troisième mandat ay xëccoo xeex ay marche ay manifestation kon loolu cëram la yàlla ak ko nag joxal fii mu nekk fii ba mu muy joxe lenge yi comme ni mu ko waxee woon. Mhm. moo ne dina def ba réew mi tegu ci yoon. kon nañu fexe aussi ba lépp loo xam ne dafay jur fitna ci Sénégal lu ci man maa ngi koy ñaan mu taxawee ko. d'accord député yi aussi dama leen di ñaan seen cër nañu bàyyi xel ne am na jot buñ koy defee moment buñ koy defee mais am na moment bu jotee. Eh, maa ngi fàttaliku 23 juin nit ñi dañu foog ne euh, manifestant yi ñoo indi li tax ñu retirer le le projet de loi mais ay député majorité ñoom ñoo nekk seen biir ñoom seen biir seet ne affaire bii méngoowul ak li ñu gëm méngoowul ak lu baax pour ñoom ci réew mi day jur du jur lu baax. ñu wax ci seen biir waxtaan ak ministre bi chargé relation assemblée ba wax ak président ba président wax leneen écoutez comme c'est comme ça que vous voyez j'ai même demandé au ministre Cheikh Tidiane retirer la loi depuis pourquoi on l'a pas fait mais taxawaayu ay député la woon te pourtant ils étaient dans la majorité aujourd'hui aussi il y a des députés de la majorité il a qui sont certainement pour parce que vous m'avez dit a voté ça vote nañ ko ci commission bi mais qu'est-ce qui va se passer en plénière imagine ñu am ay divergences ci de dossier parce que ça va pour man j'estime que mën na am quand mu am coow parce que y a une am na personnage boo xam ne déjà mu nga fa Thierno Alassane Sall je pense que bu fekkee ne problème bi euh, mën nañu wax ne moo dal Karim Wade euh, ci moom la jógee kon kooku bu nekkee assemblée nationale ñu indi dossier boo xam ne dañ naan Karim moo ko moo ko sookee wala moom moo bëgg. ak ñi àndal ak ñi mu mais kooku day indi problème est-ce que du am ci biir assemblée bi xëccoo. kiiru ci loo xam ne li assemblée waroon def mooy bu ñu gisee loo xam ne dañ ko war a leeral ñu taxawal commission d'enquête parlementaire normalement ñëpp ci war a ànd. normalement. normalement soo amee division rek c'est-à-dire qu'il problème politique. problème parce que nit ñi duñ demee seen xel. Mm-hmm. ñu ngi demee seen xol maanaam fi ñu far. te loolu réew mi war na ko dépasser ay parparloo. justement ci problème politique boobu lañ bëgg ñëw sànq yaa ngi interpeller le président de la république mais ñu bëri jàpp nañu ne setu ci parce que si le procureur tarde peut-être à ouvrir une information judiciaire euh, procureur euh, patron wam c'est l'exécutif c'est le ministre de la justice c'est le président de la république euh, assemblée nationale itam wax nañu ne député APR ni ci àndee c'est mu indiwaat ñu ci lii lépp peut xam nga xam nga xam nga politique politique dañ naan du biir ngeen baal meen jigéen ñi dafay xëy wasin maanaam politique lii xew ëllëg kenn mënu ko xam nii. d'accord day xëy rek ni màcc pàcc bett. procureur le temps de la justice bokkul ak temps wu nit ñi parce que procureur kenn munu wax ne saisir nañ ko bërki démb xaw ma. Hmm. xaw ma démb je sais pas. quand la quand bi yegg si. dafa war Euh, sans délai poursuivre non quand même am na ni ñuy wax liggéey si biir cabinet procureur pour xool dossier bi ainsi de suite ainsi de est-ce que war nañ ko poursuivre c'est très tôt de parler de blocage attends ak contrainte yi nga xam ne moom la peut-être am pour euh, pour euh, pour pour engager le processus dafa am blocage am blocage je ne suis pas dans les secrets de Dieu xaw ma ko mais il est évident wax naa leen ku ñu jël benn procureur rek moo am sañ-sañu poursuivre bu ko neexee mu poursuivre bu ko neexul du poursuivre interprétation yi ci nit ñi def nag ba yeggal ko ci ki nga xam ne mooy patron mooy la chancellerie le ministre de la justice bu boobaa nag loolu moom euh, réew yëpp procureur ba euh, sauf réquisition écrite li ko par li ko euh, maanaam ministère de la justice wax la lay def am na nag fu procureur toogee ñu ne ko lii defal ñu ne ko mu ne leen bind leen bu boobaa moom da ciy wàcc alors pour revenir ci. Euh, maanaam député yi dossier bi dem na assemblée nationale euh, président Macky ñàkkul éléments yi ñu ko jox mu déterminer mu ne jar na ma leeral lii parce que su ma ko leeralul dañuy jàpp ne man maa jalgati parce que man maa bëgg fexe ba muy lëndëm hmm. ñàkkul sax da koo def pour seetal deram daf koo def pour seetal conseil constitutionnel. ñàkkul deru candidat am aussi parce que Karim Amadou Ba la tuumaal. Karim Karim Wade dafa ne c'est Amadou Ba qui est derrière Thierno Alassane Sall bi coow li jibee xam nga loolu euh, pour man déclaration politicienne la ndax ça aurait été essentiel que booy accuser nit mu participer ci dara da nga koy teg ci taabal ji bu fekkoon ne du e, temps wu politique wala bu fekkoon ne peut-être mu ngi ci réew mi gëm naa ne loolu du ko bind. Hmm. en tout cas man de bu ma nekkoon place Amadou Ba. mu nekk ci réew mi def lu mel noonu ma porte ko plainte assignation pour diffamation man accusation dafa loolu dafa garaaw man dinaa ko def donc damay jàpp ne rek c'est politicien parce que situation bi moo toll noonu il faut faire des déclarations euh, maintenant qu'on le fasse contre Amadou Ba j'ai vu heureusement benn communiqué seen waa APR concernant yaakaar naa ci commission d'enquête parlementaire bi ak euh, dossier bi ni mu demee